amee benn kaas rek da ngay daal di sonn. ah man de indil nga ma ñaari bouteille. ah kon kay amatoo loo wax. jàmbaar nga waaw kay yow kay amatoo loo wax waaw kay. <laughs> di nuyuwaale di nuyuwaale tamit suma suma copain Boubacar Mbaye. Mhm. waaw moom tamit defal na ma teraanga si feet bi de. macha allah ah yow yaa ko waroon defal teraanga. <laughs> yow yaa aaye woon di yaa waroon def teraanga dañuy naan ko aaye wal sa moom. waaw. ah non moom moom moom jox naa ko ngalaxam moom. Ah, jox nga ko ngalaxam. waaw. Ah. mais ngalax bi euh, dëgg la da ngeen si def bière. waaw bu ñu neexee sax ñu def si bu ñu neexee sax ñu def si whisky <laughs> bu ñu neexee sax def si whisky laa la ni aayul de. <laughs> Eh? bu ñu ko aayul de. ah waaw léegi yow mi ngi noo gis. Ah. da nga màndi woon wala. man daal naan waaye doon délire ay délire yoo xamante ni. <laughs> beneen yoon whisky la whisky laa ciy def. Ah. maa la loolu. en tout cas en di la jaajëfal bu baax a baax a baax le temps euh, euh, ñeneen ñi ñëw aw audio mi ngi ci suuf euh, dafa am lu muy terminer rek bu yegsee ñu yeggali waxtaan mais waxtaan bi dama bëgg ñu tàmbali ko Georges Nassa ci mhm. dialogue bi nga xamante ne le président Macky Sall mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko woote mhm. dialogue boobu nag divisé na ñenn ñi jàpp nañu ni président mënut a woote dialogue bu sincère ba bu wootee dañ koy neenal ñenn ñi aussi jàpp nañ ni loolu moom mooy la marche normale des choses que président bu wootee dialogue dañ ko dem wuyu ji Euh, parce que aussi réew mi euh, bu ñu nuyee dañ koy def aussi ci dañ koy waxtaanee lay mujj. waaw euh, réew moom <coughs> excuse xam nga ni ko Momar Samb bu nekk RTA RTAS kooku benn mooy leader RTS rassemblement des travailleurs africains du Sénégal moom day wax ne réew kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo pencoo boobu nag mooy lan mooy waxtaan. c'est normal aussi que le le président de la république bi nga xam ne mooy la clé de des institutions moom la ñuy wax mooy boroom réew mi alors boo nekk boo moom boo amee sa njaboot nag mu nga jékki-jékki nag situation boo xam ne mënoo si juboo ak kenn wala ñu ngi si jubóol bëriwuñu mais c'est tout à fait normal nga war a woote waxtaan ne ah ñëw leen ñu waxtaan boobu comme gis naa ne su ma waxee am na ñoo xam ne dañuy naan dañuy xool géej su ma def suma discours fin d'année am na ñoo xam ne dañuy tëgg ay casserole su may dem discours 4 avril su ma leen wooyee ñëw leen si si xew mi ngeen bañ mais jot na nag nga toog am taxaw seetlu ne man lu xew ba ñii ñi ma xam ne ñoom laa bokkal réew mi ñoom laa bokkal langue politique bi mënuñu mënuñu mënuñu mënuma tuma wax dara bu ñu dégg ko léegi nag am na ñoo xam ne naam bu leen bu ñu leen wooyee dialogue dañuy naan ok nañ si dem mais am na ñoo xam ne dañuy naan mais bu boo ma wooyee dialogue lan lay dialoguer on va dialoguer sur quoi waxtaan bi ça va tourner autour de quoi lan mooy terme de référence yi parce que waxtaan waxtaanu waxtaanu xam ne si démocratie la dafa niroowul ak waxtaanu comment on appelle l'arabe à palabre maanaam fi gars yi di bolotee wala ñuy damee xam nga foofu waxtaan moom soxlawul ngay naan. lan la ñuy waxtaanee ku nekk da ngay xëy tey bu fekkee ne tey la nga ne nga laxu paak de neex na mhm. kii ne hee koor gi koor gi metti na mhm. kële ne see mais saawaay tàndarma yi kenn mënu leen a laal kii ne suukaru dëkk bi kenn xamul fu mu nekk xam nga loolu moom waxtaanu penc la <laughs> grand place mhm. foofu soxlawul ten de référence mais waxtaan si démocratie nag booy waxtaan ak des acteurs politiques faaw nga ne wax leen bu bu ngeen ñëwee lii ak lii la ñuy waxtaanee un sujet un objet un sujet voilà bu fekkee nag am na ñoo xam ne ànd nañ si terme yooyu ñooñu moom dañ ne ok nañ dem du ñu poser benn condition mais ñoo xam ne nag dañu jàpp ne waxtaan bi dafa war a jaar yoon dafa war a am euh, de termes de ñoo ñu faw nga jox leen seen euh, euh, nga teg dara seen loxo balaa ñu mën a ñëw. Mhm. Moustapha Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay bu baax Pape Makhtar di nuyu euh, Georges Nesta Diop ak euh, sénégalais yëpp ñuy déglu ci biir réew mi ak bitim réew. Moustapha nga ñëw fekk ñuy waxtaanee euh, dialogue bi nga xamante ni moom leen doon adressé dialogue boobu nag dafa mel ni dafa xaw a diviser de la société Pape civil sax acteurs politiques yi parce que ñenn ñi bu ñu jàppee ne war nañu mën a dem ñenn ñi aussi jàpp nañu. ni waruñu mën a dem parce que sincérité euh, bi waralal dialogue boobu sincérité moom la ñu gisul ci président Macky euh, je crois que baax nañu fàttali quand même ni euh, du njëkk président Macky Sall woote dialogue. oui à plusieurs occasions woote na ko. Mhm. te li Georges wax sànq exemple bu am solo la. Mhm. parce que dañu doon seetlu dialogue yi mu daan woote. Mhm. bu gaa ñi demee palais fekk ko fa en tout cas yi ma fàttaliku. mu toog ak gouvernement wam euh, lu mat 500 personnes wala lu ko jege toog ci benn salle. Euh, ñuy woo kenn par kenn ñuy jël parole. nga xam ne bu buñ ko commencé suba booy deful ndànk fa la ñuy jullee gee. ku nekk di wax. suñ ci paree génn ca après dañ naan lu mu jur. amul benn njëriñ. cela veut dire quoi que ni xëy na ba ñuy ba ñuy dem euh, terme de référence yi Georges doon tudd sànq amu fa woon. Mm-hmm. beneen bi mooy euh, dafa am ay euh, nu ñu koy wax sax ay moment de dialogue mhm. yoo xam ne yu naturel la ci république. Mhm. Sénégal noonu la mës di doxee dafa am euh, parti politique yi fu ñuy dajee ak le ministre de l'intérieur. Mhm. di waxtaane processus électoral bi. fan lañ ci toll lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi nangam ak nangam mais jamono jii ñu nekk su fekkee ne dañu bëgg a dialoguer dama yaakaar ne bala ngay wax ne damay wuy ji parce que am na ñoo xam dañ naan waaw euh, euh, ku ñu war a jël danga war a dem pour xam lan moo xew. Euh, déedéet mbir mi warul demee noonu. dama yaakaar ne dafa war a baax ñu ne ana lu ne ci réew mi lu ñu war a dialogué. xam nga réew mi nag kenn mënu fee nekkati ñu naan dañuy dialogué pour xool nu ñuy gérer pétrole ak gaz ak xawma lan ak lan. dañuy dialogué pour xool nangam ak nangam ak nangam fii dañu war a xool ñun. lan la ñuy jànkoonteel loo xam ne bu ñu ci waxtaanul. mën nañoo indil ay jafe li ñu jànkonteel Papatar te xam ne war nañ ko mën a waxtaanee ndax buñ ci waxtaanal dinañ ndey jafe-jafe mooy élection présidentielle la ñu jëm en 2024 élection présidentielle boobu war a nekk pour la première fois ci Sénégal un président de la République organiser élection yu mu dul bokk wala boog yu warta bokk boobu ba léegi ñu koy laaj moom président de la République day jàpp la mu mas wax ci kàddoom ak ay euh, àndandoom mas koo wax que ni moom mënul bokk ci élection 2024 xalaatul bokk ca wala boog day warax la nga xam ne moom la waxoon wax na léegi maa waxoon waxee damay bokk. xam nga loolu jar na waxtaane jar na tamit waxtaane ay candidats yoo xam ne dañoo war a bokk ci élection présidentielle ñii yóbbu woon nañ leen ci yoon àtte leen xañ leen seen droit ñii ñi ngi leen yóbbu ci yoon ñu bari yaakaar ne bu ñu leen àttee mën na leen xañ seeni i droit. Hmm. yooyu je crois que mooy jërë waxtaane te yooyu pour ñu waxtaane ko pap jurul woote am pénc mhm. dégg lu baax la muy wax euh, George wax na ko sax am na waxtaan yoo xam ne euh, pour daje naan ñaata la suukar dee rek yooyu ku nekk mën ngaa ñëw mhm. mais dafa am sujet yoo xam ne bu ñu ko bëggee régler kenn mënta woo tout la classe politique toute la société civile ñëpp ñëw toog nga bëgg a régler yooyu mhm. yooyu ay waxtaan la yoo xam ne souvent euh, dañ koy waxtaane qu'est-ce qu'on dit là loin des oreilles et du ñëpp koy fekkee ay mbir la yu ñu war a waxtaanee régler ko une bonne fois pour mu jàll. parce que keroog maa ngi dégg ñu ne ku mel ni sa sekk dem na seeti Ousmane Sonko. Mhm. bokk na ca lañ fa waxtaanee ay euh, euh, moom en tout cas Idrissa Seck li mu wax ak li ko Ousmane Sonko tontu. ci li ma ci presse bi. moo di ne président Macky Sall warul mën a bokk ci élection yi te du ci bokk. Mhm. ñii nga xam ne dañ leen jàpp itam jàppe ne ay otage politique la nañ leen libéré. Mhm. ak yeneen ak yeneen xam nga yooyu boo ko xoolee dafa def ci am yoo xam ne ci diggante ñaari kuréel la am yoo xam ne réew mi yëpp la concerné. Mhm. li concerné réew mi yëpp te mu war a te jàmmi réew mi nar cee jaar mooy élection présidentielle yii di ñëw président Macky Sall waru cee bokk te moom moo wax ne mënu cee bokk. Mhm. bu ko respecté jàmm na ñooy. Mhm. leneen li ci des ñoom ñu waxtaanee ko entre acteurs. justement foofu laa bëggoon euh, fi Moustapha daanabee sax foofu laa bëggee ñëw cest à waxtaan bi fu mu toll nii. Euh, je pense que président bu wootee waxtaan nekkatul di naan nañu xool prix du loyer fu mu toll. est-ce que ni ni appliqué nañ ko. wala nañu xool est-ce que baisse de prix mi nga xam ne jëloon na mesure ndax bu boutique appliqué nañ ko fu mu nekk nii on est dañu toll fu jamono boo xam ne benn benn kii rek mooy focus bi mooy élection présidentielle deux mille vingt-quatre. ak li tout tout loo xam ne ça tout autour de cette élection là. léegi nag acteurs yi nga xam ne moom la dialogue bi soxal ku si nekk booy ñëw da indaale sa doléance naturellement. parce que am na doléance yoo xam ne du ñoom ñëpp ñoo ko bokk. par exemple boo nee waa PASTEF waa PASTEF dañu naan balaa ñuy dialoguer sunu personnes yi nga xam ne sunu 400 militants sympathisants yoo xam ne ñu ngi si kaso bi faw ñu génn ba pare ñu war a mën a waxtaan ak yow. Mhm. Euh, ñu mel ni waa sunu cani candidature am wóor ñu. waa Khalifa Sall boo leen waxee ñu ne lu ñun lu ñu ñor mooy na Khalifa Sall bokk si élection yi. Mhm. xam nga ñooñu c'est des kon daal mu daal di mel ni dialogue paritaire mooy commencé di am parce que ku nekk ak sa soxla. Mhm. ku ñëw da ngay ñëw si dialogue bi waxaale soxla. mais nag am na am na point yoo xam ne ñëpp ko bokk. mooy lan mooy par exemple lu processus électoral. parce que loolu ça concerne tout le monde. bépp candidat ak même Euh, war nañu yokk par exemple la durée boo xam ne moom la ñu jox pour euh, les les les inscriptions sur les listes mm-hmm. la révision est-ce que mënuñ ko yokk par exemple de dix jours dix jours ou quinze jours ça dépend. selon euh, bu ñu tombee d'accord rek ñëpp d'accord si tout façon xam naa ne bu ñu waxoon tey nañu yokk dialogue boobu en fait nañu nañu yokk durée bi. yaakaar mu am kenn koo xam ne si classe politique bi dana wax ne déedéet loolu du ma ko nangu parce que ñëpp la mën a arrangé. Mhm. parce que ñuy nekk le primo votants maanaam ñoo xam ne ñooy dem si commission de bureau instant yi kenn xamul fan la ñuy voté kan la ñuy voté am na xam ne dañoo njort ne booy nekk si commission yëpp actuellement waa PASTEF lañu mais loolu ça njort la rek. njort la mhm. mu am beneen euh, question boo xam ne si dialogue bi la war a bokk mooy le montant de la caution. loolu tamit candidat yëpp la soxal parce que bu fàtte ne euh, loolu ça a été objet de consensus maanaam dañuy ñëw ñu woote ñu ne ñaata ngeen proposé pour koo xam ne moom la war a joxe pour nag candidat à la présidentielle am na ñoo xam ne dañu naan nañ ko def 60 millions ñii nee la non loolu dafa bëri loolu on n'est pas dans une démocratie censitaire nañ ko def 10 millions ku bëgg a bokk bokk. Hmm. mais loolu nag bu ñu demee ba ñoom ñëpp ñu concerté wu autour du premier de de de de ministre de l'intérieur bu ñu mënul tombé d'accord ministre de l'intérieur day wax ne waaw dégg naa seen proposition léegi damay jox euh, kaddu gi président de la république mooy tranché en dernier ressort noonu la mos a deme donc dialogue boobu aussi euh, ça concerne tous les acteurs. kenn bu boo ko déggee doo xaar doo doo toog ne damay xaar ba ñu woo ma. troisième point boo xam ne c'est important euh, te moo soxal encore tous les candidats mooy le problème du parrainage. est-ce que dañuy trouver une solution pour élection 2024 mmh. étant donné que même la cour de la CEDEAO nee na euh, disposition parrainage jaarul yoon je crois quand même bokk na si recommandation yoo xam ne buñ ko defee après la présidentielle mm-hmm. euh, les certains organismes ñoo xam ne les observateurs dañ ne woon na Sénégal dindi parrainage bi mm-hmm. loolu tamit je crois que mën na nekk thème waxtaan bi parce que day euh, buñ buñ ko continuer tamit ñu bàyyi nii parrainage bi mm-hmm. tel qu'il est établi mais am na ñu bëri encore du ñu bokk si élection yi. Mhm. parce que am na gars yu bëri ñu ngi wax ni candidat la candidat la mais pour ñu am. Euh, euh, parrainage dina jafe. Mhm. Mhm. donc loolu tamit dañ ko war a dañ ko war a waxtaanee. je crois que ça c' est les thèmes les plus importants maintenant bi ci gën important Moustapha wax na ko te boobu mooy soxal. waxuma la candidat yëpp sax mais même le Sénégalais citoyen daa nga xam ne ñu ngi bindu si si kii te nekkuñu nekkuñu sax dans le fichier électoral. Mhm. parce que bul fàtte on est 16 millions 17 millions. te 17 millions yooyu le fichier c' est combien 6 millions 500 environ. Mhm. Mhm. donc y' a au moins 10 millions de Sénégalais yoo xam ne amuñu sax carte électeur am nañ carte d' identité mais amuñu carte électeur mais quand même jàmmi réew mi soxal na leen te tout ce qui tourne autour de jàmmi réew mi c'est seen seen dañ ko kii mm-hmm. seen préoccupation la boobu commence na par lan que le président dise man du ma nekk candidat ñooñu xam nga moom bu ñu waxtaanee thème boobu faw ñu déglu ko te nañ leen intéressé donc yooyu daal laa jàpp ne moom mooy sujet yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee mm-hmm. ñëpp nañ sa ànd d'accord aw Diome Ndiaye ñu ngi lay nuyu Fambata maa di nuyu Georges Nesta Diop nga xam ne dafa ma réeroon ci pack bi xaw ma fu mu dugg. Hmm. moom déposé candidature ba pare di réer. ah yónneew la ci ngalax yu mu def biir. réer réer Paul maa ngi doon wantil waa ji Paul xam na <laughs> Paul Edgar Sène voilà Moustapha bàyyi sëñ Saliou maa ngi koy nuyu bu baax. di eh, nuyu Diène bu baax a baax a baax baax sama lébu bi. di nuyu également euh, Awa Diop ak euh, Djibril Ndir di nuyu ñu safoo leeru jamono wall Walfadjri yëpp di ñu teewlu mon oncle Mm-hmm. bàyyi la nga souffler le temps euh, Moustapha. Euh, mm-hmm. dafa mel ni histoire mooy répété parce que euh, si ay jamono 2011 2012 Abdoulaye Wade woote woon na ay dialogue ba demee ba nekk ci guuta mais mm-hmm. li mu waxoon opposition bi mooy que un président kenn du ko imposer ay préalable lii Georges Nesta wax ay préalable la yoo xamante ne bu amul dialogue boobu du mën a ne. ay préalable yu mënta ñàkk. un président kenn du ko imposer ay préalable dafa fekk ne président boobu nar lu jubul rek mais su fekkee ne da nga bëgg a woote waxtaan. jàmmi réew mi cote kott kott tax laa tax laa jóg mais ñi ngay woo waxtaan mais duñ sa ay euh, duñ sa ay taalibe euh, c'est pas de fidèles yoo xam ne dañuy ñëw jox la nopp nga déglu pare ñu ne ëskay dem ñibbi seen kër ah non non sa ay nawle ngay waxtaanal mm-hmm. ay nawle yoo bokkal classe politique bi te le droit bi nga xam ne moom la Georges wax na ko sànq ce n'est même question de de politique ou de parti politique mais chaque Sénégalais honnête am na droit ne loolu président de la république daf ci war a wax lu leer a leer mooy lan mooy le président de la république du Sénégal moo wax sénégalais yi ne leen 2024 man du ma bokk ci seeni élection léegi ba mu faloo 2019 ba léegi nangoo cee wax man dama nekk bépp euh, homme politique bu mën a dem jalo gi ak président Macky te mënu la wax lu leer ci loolu mais xam nga ne li nga nekk tegu ko fenn hmm. loolu loolu mooy cest Sénégal loolu daf ñoo tënk ñu ngi naan réew mi euh, maa ngi koy dégg ci suba bi tey journaux yu bari bind nañ ko ne waa bennoo yi ñeent ci ñoom en tout cas nee nañ woy Macky Sall dafa war a présenté waat en 2024 pour la stabilité du pays ak nangam ak nangam ak nangam. Mhm. pour jàmmi réew mi mais jàmmi réew mi mooy président Macky Sall respecté kàddoom. Mhm. loolu mooy jàmbi réew mi. Mhm. su respecté kàddoom man euh, cest ku bëgg ay ci réew mi fooy fooy jaar pour ay. ce sera pour faire quoi mhm. si le président dit que ni man ma waxoon ne deux mille vingt quatre mënu bokk ci élection sama ancien premier wax na ko mhm. sama ancien ministre de l'intérieur wax na ko sama ministre de la justice wax na ko ñëpp ñi bokk ak man di ànd ak man wax na ñëpp Sénégalais yëpp dégg ne leen ñun en deux mille vingt quatre mënuñu bokk ci élection parce que loi moo ma ko mayul léegi jub nañ 2024 sénégalais yi euh, bu fekkoon ne président de la république euh, euh, bi mu jugee élection 2019 daf leen wax ne fa ma nekkoon fa nekk ba léegi d'ailleurs wax na ko waxati ko fa ma nekkoon fa laa nekk ba léegi mais réew mi ñi ngi commencé dugg ci ci lënt jour bi président Macky Sall taxawee journaliste laaj ko ne ko est-ce que 2024 da ngay bokk wala déet mu ne nii wii nii non seetlu wu la ne lënt bi ñu nekk foofu la juddoo nii wii nii non. léegi nii wii nii noo googu su ko dee su ko yëkkatee wax ne noo man maa waxoon ne mënumaa bokk duma bokk mais man je me question des ku bëgg ay ci réew mi fooy fooy jaar pour wut ko. fooy jaar pour wut ko donc préalable à tout dialogue mooy loolu. amul leneen. te te te nga may ma tuuti rek balaa ngay jaar si aw Diop Ndiaye. Euh, Ibrahima Sène yàlla na ko yàlla yërëm taxaw rek. amiin amiin amiin moom la ñu dem en deux mille vingt deux. Mhm. ba sa sànq yàggagul de. temps boobu sax moom mu ngi si feebaram dafa bindoon benn contribution ne président Macky Sall bu warul déglu ñoo xam ne dañ koy tiital en fait finalement mooy ñooñu nga xam ne dañ nekk dans la moisse ba tey yaakaar naa ku nekk xamoon nga Ibrahima seen ak ses positions. Mhm. moom lu mu xalaat lay wax. du si xa soxlawul nga ne ko kii su ma ko. bindee dañ may saaga ak koo mënti doon. Mhm. dafa ne woon en résumé président Macky Sall na jël see responsabilités te bañ a déglu ñoo xam ne ñoom la àndal. kii lui font peur maanaam dañ koy tiital ne yow boo fi nekkul réew mi du dox. wallaay te yow comment se fait-il la mouvance présidentielle c' est inacceptable dans une mouvance présidentielle que mun nga toog nit ne la yow kenn mu la remplacer. si ñun ñun ñu nekk nii mu présidentielle. c' est même irrespecté. c' est c' est même ce n' est la mouvance présidentielle. parce que tey mouvance présidentielle c' est combien ils sont dégg naa ñu ne deux cent et quelques partis mais mënoo ne deux cent et quelques partis si nekk xanaa bu si gën tuuti am na au moins vingt militants. donc deux cent et quelques partis amu kenn koo xam ne bu yeewoo. kenn koo xam ko mën a reer jot mu reer te mënut a remplacer Macky Sall mais nañ ko tëj te dem. mais nañ ko bañ a bàyyi nañ ko bañ dugal si problème yoo xam ne dëkk bi euh, euh, stabilité wu dëkk bi moo koy indi def nga douze mandats ma ne douze mandats douze ans si si bopp réew war nga dem noppalu def sa carrière international ñëwaat on loolu gis nañ ko gisaat ko yaakaar naa loolu mooy loolu mooy une vraie démocratie wax naa ko xam nga dem ko junj keroog. boo demoon au Bénin euh, Mathieu Kérékou defoon na ko te Mathieu Kérékou bu muy ñëw si nguur coup d'état la def. Mhm. def coup d'état dem toog fa def soo mandat bi toog jékki-jékki xam ne nag vraiment fu mu dem mu organiser benn conférence nationale parce que dëkk dëkkam naroon attaque hein mu ne ok y a pas de problème j'organise une élection pour la dernière fois. ñu gagné ko ni ses forces lu gagné ko. def def fa benn kii. mu bàyyi ni sa forgal sobloo def benn cinq ans mu ñëwaat dóoraat ko taxaw. Mhm. donc je crois que ça c'est possible dans une démocratie. Mhm. Mhm. donc luy xew feneen je ne vois pas pourquoi duñ ko créer les conditions pour mu mën a xew Sénégal. ici au Sénégal